ci suuratu Ra'd aaya 29 alladina amanu wa amilu salihat tuuba lahum إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبقي الحمد لله خمناكم نيجي وي ci xéewal gi nga xam ne suñu boroom moo ñu ko defal mooy dund ci biir li nga xam ne mooy weeru koor gannaaw ba mu wërsëgal ñu it ñu daje ci ab néegam di jàng ab téeréem loolu ay ngëneelu borom bi la subhanahu wa taala moo koy jagleel ku mu neex yal na yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko kon ñu ngi war a jël tey jeexitalu suratu raad insha allah ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا أو تحل قريبا من دارهم حتى يبعث الله إن الله لا يخلف الميعاد بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني بروم جل وعلا مني الذين آمنوا وعملوا الصالحات ñi nga xam ne dañoo gëm tey jëf jëf yu yiw yëf tuuba lahum wa xusnu maab ak texe de ñeel na leen ca it dana leen ñeel gën jaara fetu delluwaay kazalika arsalnaaka fi ummatin naka nii laa la yónnee ci xeet boo xam ne qad xalat min qabliha umam jiitu woon na romboon na ci lu leen jiitu ay xeet li tatluwa alayhim alladi awxayna ilayk ngir nga jàng ci ñoom li nga xam ne moom lañu wax yu jëme ci yow wa hum yakfuruuna birrahman teewul ñoom ñi ngi weddi rahman muy borom yërmaande ji qul huwa rabbi laa ilaha illa hu neel rahman boobu day muy sama boroom kenn yeyoowul ñu koy jaamu kudul moom alayhi tawakkaltu wa ilayhi maab ci moom dong lay sukkandiku ci moom wa ilayhi mataab ci moom dong lay sukkandiku ci moom dong lay tuub di dellu walaw anna qur'aanan suyyirat bihi aljibaal bu doon te ne day am na alqur'aan du ñuy mën a dox loo ay montagne aw qutti'at bihi al ard wala alqur'aan du ñuy mën a xotti suuf bi jàll aw kullima bihi almawta wala alquran bu ñuy wax ak ña nga xam ne dañoo faatu woon bal lillahi al amru jamia li am kay mooy mbir yépp mi ngi dellu ñeel yàlla kese afalam yayasi alladina amanu ama ndax dafay naagu ay yàkka ñaakaar yaakaara ci ñi nga xam ne dañoo gëm an law yashaau llahu la hada naasa jamia ne bu sooboon yàlla day dana jubal nit ñi mboola seen wala yazaalu ladina kafaru tusiibuhum bima sana'u du dañ mukk ñi nga xam ne ay yéeféer lañu mu leen di dal ca jëf ja nga xam ne jëfoon nañ ko qaari'atun la nga xam ne mooy alkaange guy dal ci seen kaw aw taxullu qariban min daarihim wala mu daal di wàcc ci lu jege ci seen dëkkuwaay ya xatta yaatiye waadullah ba baa muy dikk nag jugub yàlla bu mag ba inna allaha laa yuxlifu laa yuxlifu lmiaad sa borom yàlla day du wuute ak la nga xam ne muy ay déggam mi ngi noonu mbokk bi ñu fi mujjee démb suñu borom mu ne allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub borom bi ne ñi nga xam ne dañoo gëm te seen xol di dale ci zikrullah fàttali ko yàlla lan mooy zikrullah bi gën a màgg zikrullah bi gën a màgg mooy téereb yàlla bi afdalu zikri kitaabullah su ko defee jurit bi jàngal quran kii moo am dal xel amul benn natt bu muy traversé amul benn yaakaaram buy tas amul amul amul lu dul sooy jàng téere borom bi jalla wa ala da nga ci gis lu dalal sa xol loo xam ne nii dalay may ak noppalu tey nag suñu borom ni ñi gëm te jëf lu baax bokk ñi gëm mooy ñan mooy ñi gëm la yàlla gëm lu fonk yi ko jiite mooy ñu wéetal yàlla duñu jaamu keneen ku dul moom gëm ay malaakaam gëm téere yi mu wàcce gëm ay yonentam gëm la nga xame ñi ni mooy allaaxira mi ngi ñëw sikkaamu ci waaye ñu gëm dogale yàlla yi ndax ca lañu yem déedéet dañoo jëf jëf yu baax yi mbokk lan mooy jëf bu baax mooy jëf boo xam ne nii daa dëppook sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bi nga koy def yàlla rek a tax lii mooy jëf bu baax beneen bu dul bii baaxul tey jii bu doon dañoo daje ñu ne waaw gaa yi kat ñu ngi ci weeru koor tàkkusaan ji kon nañ ko def juróomi rakka yéen ñëpp ngeen ànd ak imaam jul juróomi rakka ndax gaa yi loolu lu baax la déedéet baaxut waaw bu ñu ne woon nag ah waaw nañ ko far wàññi rek def ko ñett baaxut kon mbokk mbir balaa baax sunna da koy jàngale misaal boobu boo gisee ma joxe ko day gis ñu bëri créé seeni bidaa soo waxee ñu ne waaw astaxfirullah lu ci nekk nangam lu ci nekk nangam lu ci nekk mbokk li ci nekk mooy dem nga tënk nit ñi ci loo xam ne waxtu sàngam dañ ko war a def lim sàngam dañ ko war a def fay sàngam mi ngi leen di xaar ci buñ ko defee ci loo xam ne yàlla wàccewu ci benn lay loolee mbokk doo amalu saalix ma baamu waatal la al amalu saalix mooy daa dëppoog sunna te bi nga koy def yàlla rek a tax nga koy def ñu mel nii suñu borom mu ne tuuba lahum tuuba mooy ak texe texe mooy jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira koo xamee ni nii mboolemi xiiwalu àdduna yi dajale nga ko te àllaaxira nga jëm sawara ndax ku mel nii texe na laa laa xayra fi lazzatin min baadiha naaru koo xam ne safara la jëm mbokkalam nekk du bànneex du xéewal waaye jullit moo dajale xiiwalu àdduna ak xiiwalu àllaaxira lu waral loolu mooy aay bi njàngoon dem allazina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi zikrillah jullit jardin mi ngi ci biir xolam bànneexam mi ngi ci biir xolam ak doyloom mi ngi ci biir xolam fu mu mën a nekk day yëg suñu boroom jalla wa ala nangu ay dogalam loolu moo koy may texit àdduna allaaxira nag suñu boroom yàlla may ko gën jaare fa ci delluwaay ca moo ko gën jaare fa ci delluwaay mooy delluwaat aljanna ñu ngi noonu fa la ñu jóge woon sunu maam fa la cosaanoo woon képp ku fa dem da nga faa dellu loolu mi ngi noonu doonte ne tuuba arab da koy wax ak texe waaye ñëw na ci sunna rasul sallallahu alayhi wa sallam ni biir àjjana day am na fa garab gu ñuy wax tuuba nee na aji war mën na war fasam di dawal di dawal téeméeri at te du jeexal keru garab gi ay du génn ci branche garab gi téeméeri at loolee mbokk dañuy misaal rek ne lay xew allaaxira ak li xew àdduna du mbir yu ñuy comparé yi ngi noonu ñooñu kon tuuba lahum tuuba ñeel na leen wa xusna ma a gën jaare fi ci delluwaay waaw buñ leen suulee Amérique nag te dëkku yéeféer ya ba ñoom seen delluwaay dana baax waaw buñ leen suulee Colombie nag te dëkku dorog ba ndax seen delluwaay dana baax aha kay bu doon bokkoon nañ ñi gëm yàlla te def am amalu saal ñu ne dina amanu amalu saalihaat am déet tuuba lahum waaw buñ leen suulee Makka nag ca alxaram bi gën suuf bi gën a tedd ci kaw suuf waaw bu ñeen suulee Madina nag ñaareelu suuf bi gën a tedd ci kaw suuf ndax kon seen mbir seen delluwaay rafet na laa wallahi bu dee ne seen ngëm sellul seen jëf baaxut bu dee ne seen ngëm sellul seen jëf baaxut ak fu ñu leen mën a suul duñ texe abadan amma allazina amanu amilu salihat tuuba lahum fu ñu leen mën a suul ci kaw suuf tuuba lahum wa xusna maa ak gën jaa rafeti delluwaay suñu boroom daa di ne ab yonentam nii day laa la yónnee ci xeet yoo xam ne ay xeet jiitu woon nañu ko du yow yaay njëlbeenu yonent sa maam nuux aad huut saalex ki ci mujjoon mooy Iisaa ibnu Maryam loolu it mu lay jàngal suñu boroom mu ne qad xalat min qabliha umam kon yonent yàlla bi mooy mujjeelu yonent bi yàlla di yónni mboole mi yonent dañ koo jiitu lan moo tax yonent yàlla boobu ñëw suñu boroom ne li tatlu alayhim lazi awhayna ilayk ngiree nga jàngal leen alquran mbokk lii moo doon cosaanu suñu diine yonent yàlla toog ak saxaaba yi di leen jàngal alquran mboolem alquran jii nga tiim six mille et quelques aaya yonent yàlla bi moo ko jàngal saxaabatul kiram jàngal saxaabatul kiram ñu jàngal seeni moroom ñu ngi noonu loolee da ngay gis sa keroog ba lam yëkku ni wàcce yonent bi alayhi salaam woo Ubay ibn Kaab ne ko suñu borom day nee na naa la jàngal lam yakuni ngir nga jàngal ko saxaaba yi Ubay ne ko ah yow mi yàlla yónni sama borom tudd na sama tur mu ne ko waaw waaw keroog Ubay jooy jooy yi metti mbokk lii moo doon dundal lislaam ñu leen di jàngal téere borom bi waaye ñu dem a dem ba mujj seytaane dugg ci jullit ñi ñu créé yeneen i téere yu ay yeneen nit bind créé ay zikr léegi nit ñi bu ñu dajaloo la leen di dajale muy zikr bu ñu dajaloo ci ne dañuy jàngal Qur'an bàyyi moo dee wala maama dee ñu daje kenn du déglu sa morom rakkatat bu dul jeex amma nag koo xam ne nii dafay jël téere bi yàlla bi toog di ko leeral loolee seytaane ni la nga xam ne ni mooy tafsiru quran sawaabuhu qata wa qat'uhu kufru ñu ne boo waxee dëgg juum nga booy tafsir boo waxee dëgg juum nga te boo juumee dugg nga ci kéeféer mu am ñeneen yuñ ci làq ñu ne lenn sunu maamu réew nee na foo fekk ñuy tafsir quran boo solee dalli weñ dawal ba dalli yi yàqu mbokk loolu dañ koy duural sunu maam yooyu waaye waxuñu ko mi ngi noonu loolu kon la suñu borom subhanahu wa taala wax mooy jullit dañ koo war di jàngal alquran bépp jullit yuy dund ca duñ daje ñu leen di jàngal alquran buntu kéeféer ubbeeku na ci yoon suñu borom moo ko wax wa kayfa takfuruuna wa antum tutla alaykum ayatullah wa fiikum rasulu naka ngeen di wedde ci ñu ngi leen di jàngal la nga xam ne mooy aaye borom bi ci yonent bi nekk ci yéen loolu muy wane ne bokk mooy garanti xeet bi ñuy daje ubbi téere bi yàlla bi naan qaala allah qaala rasulullah lii moo nekkoon suñu garanti borom boobu nag nee na téere boobu ñëwoon na nga leen ko war di jàngal mu xamal leen seen diine waaye téewul ñoom ñi weddi rahmaan waa màkka yi dañ doon wax naan muhammad ñun xamuñu rahmaan ñu ngi noonu xamuñu rahmaan yàlla moom ngay tul tur rahmaan ñun xamuñu ko suñu borom nag ne rahmaan boobu yow neel mooy sama borom neel mooy sama borom rahmaan mooy sama boroom kenn yéewal ñu koy jaamoo ko dul moom na am mbokk am na saar bu tudd suratu rahmaan suñu boroom ma nga fay xamle kan mooy rahmaan mu ne arrahmaan allama alquran xalaqa al insaan allamahu albayaan rahmaan mooy ki nga xam ne moo bind doomu aadama ki nga xam ne moo ko jàngal alquran wax ba saar ba jeex ci la nga xam ni noonu la tàggatee di nekk kaw asamaan ak suuf yow yeneen ci bi neel man mooy sama boroom ci moom rek lay wékku ca it heure bu ma jaaxlee heure bu may tuub ci moom rek lay dellu ca it loolu mbokk yeneen ci yàlla bi bokk suñu boroom ne xul waxal man ci yàlla lay wékku loolu mi ngi jàngal xeet bi ngan la waay yéen xeetu lislaam bu dee tubaab yi dañ naan on ne sait plus à quel saint se vouer ndax ñoom ku nekk am nga saint boo yaakaar ngan la waay yéen jullit ñi bu ñu leen wàllu loolu yéen amu leen ku ngeen di yaakaar ku dul yàlla yàlla dong ci ngeen war a wékk te it yàlla moomu ngeen war di tuub di dellu ci moom rasul sallallahu alayhi wa sallam daana wax ay nit ñi te leen jéggulu yàlla di tuub di dellu ci moom man day bés bu nekk lu ëpp juróom-ñaar fukki yoon danaa tuub di dellu ci yàlla am riwaayu yi wax lu ëpp téeméeri yoon yàlla daa bëgg jaam bi tuub même boo yëgul ne def nga bakkaar ngay baril di wax astaghfirullah wa atuubu ilayhi di tuub di jéggulu ci borom mbokk yéeféeri màkka yi wala boob jullit ñi àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ daan am tiis bu métti na am fa lillahi alhamdu xëy na lu bari ci ñun xamuñu seen mbokk yéeféer xamuñu ku ñu bokkal muy yéeféer loolee xéewal gu rëy la bu yàlla defal lu bari ci ñun waaye xoolal sahabatul kiram da ngay gis koo xam ne famille moom dong ciy jullit baayam yéeféer la yaayam ay doomam ay kum mën a doon ñépp ay yéeféer la ca mu leer ko ne bu ñu dee safara lañ jëm maadaama wéjji nañu lislaam ku ci dee safara la jëm loolu métti woon leen ba tax ñu naan ak a neexoon alxuraan bu ñu ko jàngee ci montagne montagne bu jóg mi ngi noonu dox ak a neexoon bu ñu ko jàngee ci suuf suuf si xar génne ay dex ak a neexoon ñu man cee wax ak néew yi ndax sama baay tuub wala sama yaay tuub wala sama soxna tuub ila axiri suñu borom subhanahu wa taala nag ne déedéet mbir yépp ci yàlla lay dellu gis nga bu loolu amoon it du tax ñoom ñu tuub moo tax suñu borom ne bu amoon alquran bu mas a wàcc di dox lay montagne wala di xar suuf wala ñu waxe néew kon bii lay doon waaye loolu musul am ca it bu doon loolu am na it mbir yépp ci yàlla lay dellu mbokk amul kenn kuy tuub lu dul bi iznillah looloo tax boo demee suratul anam suñu borom ne su ma defoon lépp lu yéeféer yi laa jëg du tax ñu tuub moo tax suñu borom ni eewaay yéen jullit ñi bu leen ñàkk naagu ca ni su neexoon yàlla mu jubal ñëpp te it yàlla joxe na ci preuve preuve ba mbokk mooy xare bi gën a metti bi suñu yenent yàlla xare mooy xare uhud xare uhud ca lañu daaneel juróom-ñaar fukk ci ay saxaabaam bokk na ñëkk ca gënoon a jege ñoom Hamza ñoom Musaab ak ñeneen ak ñeneen ca lañu dammi bëñam toj jëm ay saxaabaam saadit ci jafe-jafe yu tar ca la ko dale woon ñooñu ko ko teg ñoom ñépp ci lislaam lañ mujj dee gaa yi loolu di kaw téefa ca yonent bi meral na keroog mer boo xam ne bi mu gisee ñoom Hamza parce que yéefir yi arab yi booba Hind yéefir la mooy dekkoon première dame ca Makka mooy jabaru kilifa ga ba Sufyaan ànd ak jigéen ñi ñëw ci jullit ni ñu rey ñépp ñu dagg seen nopp dagg seen bakkan dagg seeni tuñ def ko ay caq boo ko xam ne loolu lu ñaaw la yonent bi alayhi salaam bi mu koy gisee mer na mer boo xam ne ni ñii su ma dajawaat ak ñoom kaza wa kaza suñ borom yàlla ne ko hey laysa laka min al amri shay'un dara ñeeru la ci mbir mi imma yu'azzibuhum wa imma imma yaghfiru lahum wa imma yu'azzibuhum fa innahum zalimun li am daal mooy ay jaami yàlla la su neexee mu jéggale su ko neexee mu mu buggal leen la yàlla dogal ñun ñëpp ñoo tuub dugg ci lislaam ña ko jiite woon Abu Sufyaan mooy buuru Makka moo ko jiite woon ci lislaam la dee ka nga xamee ni nii moom moo nekkoon Xaalid ibnu Walid mooy général bi taxoon ñu rey ñu ñu ñu ñu gañe jullit ñëpp ndax moo wëri gaa yi nekkoon ci kaw montagne ba ci lislaam la dee Hamza yonent bi alayhi salaam nee na ñi dee fi sabilillah ki ci gën a kawe muy Hamza ki ko rey mooy Wahshi Wahshi moomu ci lislaam la dee ikrama doomi abi jëhal nga xam ne moo doon ànd ak baayam coono bu ne mu tekkul islaam ikrama ci lislaam la dee ci gàttal hind boobu nga xam ne moo àndoon ak jigéen ñi xot ci def lu ko neex mu def ko ci ci ci jullit ñi ci lislaam la dee kon su neexee yàlla mu jubal ku ko neex yàlla na yàlla jubal ñu jubal suñu njaboot walaw shaa allahu la hada naasa jamia borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne kon yéeféer yi nag du deñ di dal ci seen kaw la nga xamee ni ne mooy qaari a qaari a mooy mbugal moo xam ne fëgg na xol ya tiital xol ya al qaari a mal qaari a wa ma adraka mal qaari a loolu dana am yowm al qiyaama amma qaari a fi dunia mooy mbugal mu wàcc tiital ñëpp wala boog mu wàcc ci sa wetu dëkk te loolu it ne tiital la mooy nga ragal ni bu ñu jógee foofu ci man lañuy ñëw mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ne ba baa digub yàlla bi di ñëw ca it li suñu borom ne wala yazaalu loolu it mbokk yéeféer yi ba ilaa yawmi diin yàlla du deñ di leen teg ay natt bàyyi leen xel ne première guerre mondiale deuxième guerre mondiale yéeféer yi neen ñoo doon xeex seen biir dañoo fexe kay ba dugal ci ñeneen ñi waaye ñoom ñoo doon xeex seen biir li ñu rayante seen biir kenn xamul lu ma toll avant ces guerres là li ñu reyante kenn xamul nañu toll après ces guerres li ñu reyante kenn xamul nañu toll ca loolu it yàlla rek a xam tey jii li nekk ci seen dëkk yi ci ay ay ay ay bombes nucléaires mën na détruire àdduna bi day combien de fois yàlla xam kañ lay indi fitna seen biir waaye daal ala kulli xaal suñu borom yàlla nee na yéeféer yi ñoom dañoo deñ léeg-léeg yàlla di wàcc ñoom ay mbugal wala mu wàcce ko ci seen wet loolu lan moo ci jubluwaay yàlla mooy ngir ñu tuub delluwaat ci yàlla ñun ñun yal na yàlla wërsëgal ñu dellu ci moom balaa mbugal di ñëw ci ñun naam
ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق barakallahu fiikum suñu borom mu ni walaqad istuhzia bi rusulin min qablik nekkoon nañ ji saboote ci yonent yu la jiitu woon fa amlaytu lillazina kafaru ma daldi bay bayle ña nga xam ni mooy yéeféer yi mu ñul leen summa axastuhum gannaaw ba ma jàpp leen fa kayfa kaana iqaab naka la nekke sama mbugal ci ñoom afaman huwa qaa'imun ala kulli nafsin bima kasaba amu ndax ki nga xam ne mooy aji taxawee ci bépp bakkan ca la muy fàggu wa ja'alu lillahi shuraka ñoom ña ngay defal yàlla nag ay ay bokkaale qul sammuhum neen tudd leen bokkaale yooyu ñu dégg am tunabbi'uunahu bima laa ya'lamu fil ard wala boog da ngeen di xamal yàlla ci lu mu xamul ci kaw suuf am bi zaahirin min al qawl wala boog lii lu feeñ li rek ci ay wax la waaye yëggul ci seen xol yi bal zu bal zuyina lillazina kafaru makruhum li am kay mooy taaralal nañ ñi nga xam ne dañoo weddi seeni pexe wa suddu an sabil ñu fekk leen ca yoonu yàlla ba wa man yudlilillahu fama lahu min haad ku yàlla réeral amul kenn ku koy mën a jubal lahum azabun fi lxayaati dunya dana leen ñeel mbugal ci dundug àdduna gi wala azabul axiri axirati ashaq dundug mbugalu alaxira day mooy gën a tar mooy gën a métti wa ma lahum min allahi min waaq te du leen ñeel ci yàlla kenn koo xam ne aji ku leen koy fegal la mi ngi noonu ba ko gis nañu suñu borom subhanahu wa taala mi ngi dalal xoolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko yonent yi la jiitu woon nit dañ leen doon saboote mbokk jullit xam leen ni diina nattu yàlla la suñu borom mu ne aksaruhum lil xaqi karihun li ëpp ci nit ñi bëgguñu diine loolu moo tax ba booy dund diine ak société bu mu mën a doon da nga nekk en contradiction ak bëgg-bëgg société bi loolu it moo tax ñu reetaan la saboota la jomb la comme ni ñuy reetaane suñu jigéen ñi nga xam ne dañuy xijaab di leen tuddee des tentes mouvantes ak di leen tuddee lu kenn xamul ala kulli xaal lu ci mën a am mooy na nga xam ne diine moom boo koy dund fokk nga dégg ñu lay rey suñu borom mu ne reetaanoon nañ yonent yi jiitu woon waaye man yàlla muñul naa leen gannaaw ba ma jàpp leen ak nan laa leen jàppee mbokk yàlla temps ak suñ temps daa bokkul nee na benn bis ci yàlla mooy mille ans ci yéen li ngeen di li ngeen di compter mille ans tey jii ñu xool doomu aadama bi nga xam ne dafa dund cent ans ci kaw suuf pour yàlla daanaka deux heures et quelques la fi def kon kooku wala fi ñaan sàcc bu dul raw jarul yàqu nelaw mooy ñii di saboté ñii di mbër mbërlu balaa yàgg ñu jël leen delloo leen seen borom kon ñu ngi noonu borom bi nag ne ba ma leen jàppee naka la nekk sama mbugal am na ñum ci jàpp fii ci àdduna wax nañu ko ci ab téeréem bokkul ak la leen di xaar àllaaxira gannaaw ba nag suñu borom mu ne cëy nit ñi ñoo doy waar nan la ñuy amee buur boo xam ne moo taxawee bépp bakkan ci la ñuy fàggu mbokk suñu borom mooy taxawe lépp huwa alxayu alqayuum moo taxawe waa asamaan moo taxawe waa suuf yow doomu aadama moo la créé circulation bi daw sa deret ji moom la sa xol bii di tëgg moo koy contrôler lépp loo xam ne am na ci yow moo lay nelawal moo lay wattu ci say nelaw moo lay yee moo lay màggal moo lay def yépp waaye naka noonu lii jóge ci yow loo wax dégg na loo jëf xam na loo xalaat xam na ndax buur bu mel nii jegee li nii nit dana ko fi bàyyi di woowi keneen ku mu koy bokkaaleel mi ngi noonu afaman huwa qaa'im ala kulli nafsin ma kasaba nga xam ne lépp moo koy fuglu ndax ku mel nii da nga wëlbati ko di ko wutal ku koy bokkaaleel suñu borom mu ne léegi tudd leen bokkaale yi boo demoon ci chrétien chrétien mu ne añu sab na Mariam on est du Père du Christ et du Saint-Esprit Isa kon dañ koy bokkaale ak yàlla kan muy añu sab isa xanaa du benn bis ëmbal nañ ko fi wasin ko mu màgg suñu borom lu mu ca teg moog yaayam kaana yaakulaani taam moog yaayam dañ daan lekk ñam gaa yi ñam bu defee si biir ñetti fan foo jëm ak moom ndax ku mel noonu yàlla la laa kun sàmmuhum léegi nga ne waaw suñu sekk suñu sekk moom moom yàlla la lu tax mooy fu ñu ko gis rek mi ngi nekk ak i garaam bu boobu bokk suñu sekk day lekk ñam de day lekk ñam day dugg fa ngay dugg léeg-léeg it yaa ngi dégg kon kooku du yàlla mbokk kan ngay mën a tudd di ko mën a méngale ak yàlla sàmmuhu loo mën a tudd rek mbindaa fa nu yàlla la borom boobu subhanahu wa taala mu teg ci ne waaw wala boo dañuy xamal yàlla loo xam ne xamu ko ci kaw suufam bi yàlla mu bind suuf def fi li ci nekk ndax dañ koy xamal loo xam ne xamu ko wala li ngeen di wax seen làmmiñ rek la yem yeggul ci seen xol yi loolee mbokk mi ngi noonu am na ñu koy wax mu yëm seen làmmiñ waaye bu yàggee day daal di yegg ci seen biir xol te toujours mooy commencement commencement bida xurafaat ña ko jëkk a sos ci làmmiñ yi lay yem mais bu yàggee rek ñu gëm ko moom la borom bi di wax naan xarrahum fi diinihim ma kaanu yaxtaroon la ñu sosoon xam ne fen la dem nañ ba mu yàgg ñu far ko gëm mi ngi noonu suñu borom nag daa ji ne li am kay mooy yéeféer yi dañ leen a taaralal seeni fexe fekk leen ca yoonu njub kan moo leen ko taaralal seytaane taaralal na leen ñu ngi noonu la nga xam ne mooy seeni jëf mbon nga ñu nekkee seeni xéewal ngi gën a yokk seeni mbooloo ngi gën a yokk loolu nag tax ba ñu dummóoyu yoonu yàlla ba waaye borom bi nekk yàlla réeral kenn mën a koo jubal te it mbokk loolu mi ngi noonu di dellu ci suñu borom jalla wa ala borom bi ni ñooñu nga xam ne dañoo dummoo yi saw yoon dana leen ñeen mbugal ci àdduna te mbokk yàlla xam nu muy mbugale ay jaamam doomu aadama bi li nga xam ci nit ki mooy zahiram yàlla xam baatinam mbugalu àllaaxira mooy lu gën a tar te du leen ñeel ci yàlla kenn koo xam ne ku leen koy fegal donte ne ni mbokk gëmal ni amul kenn kuy dee di yéeféer lu dul mbugal nañ ko mbugal gu tar ci àdduna yéen ñëpp mas ngeen a dégg sukuraat naka lay demee amul kuy sukuraat lu dul délégation malaaka ñoo lay jël si ànd ak malakul mawt su dee jurit bu baax la daañ ko dalal génn ruuxam ci jàmm yóbbu ko fa sob borom bi bu def saay-saay la malaaka yi dañ koy ñàdd ruux gi bañ yadribuuna wujuhahum wa adbaarahum bolde yi ñu yor di dal ci kanam gi di dal ci gannaaw gi doonte ne suñu borom mu ne wa antum laa tubsiruun loolu mbugalu xaybu la boo xamee ni nii ah yow yëguloo ko ñi waa jii koy dund moo ko yëg mën na am fi ñu toog am na ci koo xam ne yàlla na yàlla mu ñu ah fii mën na am bëñ bi mi ngi metti metti bu tar mi ngi toog mais nit ñi xamuñu si dara am na ci koo xam ne xëy na moom biiram xëy na nangam loolu kon naka noonu itamit mbokk yéefér buy dee ñu gis ko mu ne làcc tëdd noonu wallahi avant muy dee dat na ci mbugal loo xam ne mag boromam rek ñoo ko xam te loolu suñu borom nee na nag teggilu ko mbugalu àllaaxira ba nga xam ne mooy mbugal ba nga xam ne moo gën a tar te kenn du ko ko fegal gannaaw yàlla jalla wa ala mi nga noonu Cheikh Ousmane مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار كلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب non يرفع الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب barakallahu fiikum suñu borom mu ni masalul jannati allati wu'ida almuttaquun misaalu ajjana dañuy dig ñi ragaloon yàlla tajri min taxtiha al anhaar dana daw te suufam la nga xam ne mooy dex ya ukluha daa'im daa'imu wa zilluha lekkam ga lu sax la keram ga it lu sax la tilka uqba allazina taqaw loolu mooy mujjug ña nga xam ne dañoo ragal wa uqba alkaafirina annaar mujjug yéeféer ya nag mooy safara wallazina aataynahum alkitaab ña nga xam ne dañ leen joxoon téere day yafraxuuna bima unzila ilayk ña ngay bég ci li ñuy wàcce jëme ci yow wa min al ahzaabi man yunkiru baada am na ci nag ci kuréel yi ñoo xam ne ña ngay bañ di sib lenn la ca lool qul innama umirtu an abuda allaha neel man de dañ maa digal ma jaamu yàlla wala ushrika bi te bu ma ko bokkaaleel dara ilayhi ad'u wa ilayhi ma'aab ci yàlla moomu lay woote jëme ci yàlla moomu rek lay dellu ci samay delluwaay wa kazalika anzalnaahu xukman arabiya naka nii de lañ ko wàccee muy attee làmmiñu arab wala itabaata ahwaahum soo toppee nag la nga xam ne mooy seeni bànneex baada ma jaaka min al ilm gannaaw ba la la dikkal ci xam-xam maa laka min allahi min waliyin wala waax du la ñeel ci yàlla kenn koo xam ne dana la féetewoo wala kenn ku lay mën a fegal mbugal wala qad arsalna rusula min qablik yónni nañ ay yonent mu jiitu woon la wa ja'alna lahum azwajan wa zurriya ñu def ñeen leen ay soxna def ñeen leen ay njaboot wa ma kaana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi izni illah yellul ci benn yonent muy indi benn aaya lu dul ci ndigal yàlla li kulli ajalin kitaab bépp dig rek am na téere bu ko yàlla wutal muy ab dig mooy yamxu llahu ma yasha yàlla mooy far lu ko neex wa yusbitu yàllay saxal lu ko neex wa indahu ummul kitaab dana nekk ca yàlla lay di ndeyu téere ya muy laxwil mahfuus mbokk suñu boroom moo ñu dig aljanna àjjana jooji kan la ko dig mooy ñi ragal yàlla góor lañu jigéen lañu dañoo ñuulam dañoo weex ragal yàlla ñooñu ñoo yeyoo aljanna ku ragalul yàlla bokkoo ci àjjana jooju mu ni seen suufu pale ya dex yaa nga fay daw dex yooyu boo demee suratu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ni ay dexi meew la ay dexi sàngara la ay dexi ndox la ay dexi lem la ay dexi janjabil ay dexi yeneen ak yeneen yoo xam ne ma nga fay daw suñu borom nee na me lekkam ga muy meññatam ba dafa sax ak keram ga mbokk aljanna amul lu fay manqué jamono ji jàpp naa ne càmmin yi xëy na xaal gisuñu ko lu bëri waaye mbokk aljanna la fa nekk ci ay fruits ca ay tur rek moo fa nekk par rapport ak li nga xam ci àdduna mi ngi noonu suñu borom mu ne ukuluha daa'im meññetu àjjana du rat bal laa maqtu'a wala mamnu'a tey jii garab yi pomme yaa ngi nii boo déggee léegi mille pomme balaa sa loxo teggee ko mille pomme remplacé la du dagg ba faw meññet ba du dagg ba faw meññet bu ñu dagg automatiquement mu ñëwaat yi ngi noonu ukluha daa'im gannaaw ba it la nga xam ne mooy kerem nga te jii boo téléphoné woon Tamba wala Linguère wala Kolda ngi jàmbat tàngoor bu tar bu metti amma alaaxira aw tàngoor amu fa laa yaroona fiha shamsan wala zamharira amul tàngoor bu tar amul seddaay bu tar kenn du ne naa wuti climatiseur kenn du ne naa wuti la nga xam ne mooy chauffage ndax température am ba lu sax la zilluha lu sax la borom bi nag mu ne lii muy mujjug ñi ragal yàlla amaa yi féer seen mujj moom mooy safara borom bi ne ñi ma jox téere yi day ñoom kontaan nañ ci li ñu wàcce ci yow te na am mbokk bari na lool ay labbe ma ko yàlla subhanahu wa taala di waxee ca maida wa minhum qissisina wa ruhbanan wa hum la yastakbirun إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق suñu borom mu ne am na ci ay labbe ak i jaamukati yàlla yoo xam ne suñu déggee alquran rek ñu gis ñu commencé jooy ndax lañu xamoon ne seen yonent lii lañ leen waxoon mooy balaa àdduna tukki yonent aaxiru zaman dina ñëw su ko defee ñu ne rabbana amanna faktubna ma'a shahidin yàlla gëm nañu boolu ñoom ñi nga xam ne dañoo gëm loolu kon am na ci ñoom waaye borom bi mu ne am na ci ñoom nag ñu weddi lenn la ci alquran te bu dee chrétiens yi bokk na lañ gën a weddee alquran mooy alquran def ne Isa nit la comme nit ñépp ñoom ñu ne Isa doomu yàlla la déggoon naa ci benn débat bu benn jullit doon def ak benn chrétien ci suñu rajo yi léegi jullit bi ne ko ñun li tax débat islamo chrétien mënta nekk mooy yéen gëmu leen ne Muhammad yonent ci yàlla la chrétien bi it ne ko mais yii nit gëmu leen ne Isa doomu yàlla la yaa ngi dégg gaa yi kon débat boobu lu muy débat te donc dañuy nax rek ay débat islamo chrétien dialogue islamo chrétien dañuy nax rek gàlla waaye dialogue bi moom yàlla dialogoon na ko yaa quatorze siècle te mooy lan yaa ahlul kitab taalaw ila kalimatin sawain baynana wa baynakum kaay leen dugg ci diine ji nga xam ne ñun ñépp la yemale lu jaamu yàlla bañ ko bokkaaleel dara waaye mbokk loolu borom bi wax may yunkiru baada diini weddi lépp ak weddi ca lenn ñoo yem suñ borom mu ne afa tuminuuna bi baadil kitaab wa takfuruuna bi baad fama jazaau man yafalu dalika illa kaza wa kaza la chaque ne ñoo yem nga weddi lépp ak nga gëm lépp borom boobu nag subhanahu wa taala ne nii day ah neel man day yàlla lañ ma digal ma jaamu ko duma ko bokkaale dara maa ngi woote jëme ci yàlla woote wu ma jëme sama kër maam woote wu ma jëme sama bopp maa ngi leen di woo kay leen ñu ànd jaamu di yàlla yàlla moo man mu ca lay dellu bu ma yégee def naa bàkkaar damay tur dellu ci moom su ma jaaxlee ci moom lay dellu yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñu yaay Aïcha nee na kaana ida xasabahu shay'un fazia ila salaa lu ko masan jaaxal rek day jóg jàpp julli ñaan yàlla jalla waala kala waay jullit melal noonu ay yow sama yaay sama sœur moytu leen sëriñu tariyaax yi dañuy yàq seen adduna avant yàq seen alaxira boo jaaxlee dellul ci sa borom jullil ba pare yëkkatil sa loxo li la jaaxal ñaan ko sa borom dellu ci moom mi ngi noonu ilayhi maa ci yàlla lay dellu ci sama mbir yëpp borom bi nag ne nii laa wàcce ci yow xukman arabiyan atte boo xam ne ci làmmiñu arab la wàcc looloo tax njaago ya chinois ya portugais ya war koo jàngi ba xam ko ndax li ñuy laaj arab yi dañ leen di laaj yowmal qiyaama suñu borom nag mu ne yeneen ci yàlla bi boo toppee seeni bànneex gannaaw li la dikkal ci xam-xam doo am ci yàlla ku lay féetewoo doo am ci yàlla ku lay fegal mbugal loolu it jeunesse yëpp war ko xam mbokk jullit du topp aada yéeféer yéeféer sa digganteeg moom na yem ngeen siq liggéeyu àdduna jëflante àdduna mais lu jëm ci aada lu jëm ci diine loolee bu ko ci topp ci dara looloo tax seeni feet suñu yoon néewu ca seeni aada suñu yoon néewu ca topp leen mooy yàlla la ñu ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala daal di ne yow yonent yàlla bi yónni woon naa ay yonent jiitu la may leen ay soxna may leen ay njaboot loolu it mbokk mi wane ne yonent yi fi jiitu woon dañoo amoon ay njaboot tey boo demoon ci chrétien yi ñoom jàpp nañ ne nitu yàlla dëgg bala ngaa sell da ngay dëddu àdduna dëddu njaboot kaa yi ñu ngi nettali ne kenn ci borom xam-xam lislaam yi dafa amoon benn débat bu ñu doon def ak ay labbe nee na bi mu mu tay ko daal di xaw a tardé ba gaa yëpp teew mu ñëw bu ñëwee ne ah waaw suñ Paul da nga def waaye na ko soxna sa na ko doom ja ah suñ Jean na ko soxna na ko doom ku nekk mu laaj de soxna ak doom daal di toog gaa yi na ko mais lan ngay ñëwee dañuy kokkali naan soxna ak doom te xam nga ne amuñu soxna ak doom mu ne ah amuñu ay soxna ak doom naa mu ne lu tax. mu ne ñun dañoo jagleel suñu sellay pour sellal suñu borom ñu jagleel ko ne du ñu am soxnaa ki doom mu ne waaye alhamdulilah ba seen bàyyi sellul ni ngeen sell yéen ah bu seen bàyyi sell ni sell ni nag juddoo waay waaw mbokk bu dee ñun diine lislaam ñun dañoo gis ne suy jaamu yàlla la yonente bi alayhi salaam mu ne tazawadul walud al walud takk leen ay soxna mi ngi noonu am leen ay njaboot sëy ak jaamu yàlla la loolu ñu bari war ko bàyyi xel tey ji ngay gis ak a bari ay intellectuel yoo xam ne ñoom jàpp nañu ne soxluwuñu ay soxna mbokk loolu aaday yéeféer la yow jigéen bi nga xam ne bari na ci ay jigéen yoo xam ne ay cadre la ñu am nañ day mooy waa ji tongalu yàgg amoo jëkkër te lu bari nit ñi dañ lay ragal demal seeti suñ caam ne ko suñ caam man sëy rek laa bëgg ngir yàlla boo ko ko wax mu nangu am déet li ngi noonu ah bilal caam bii xam ne ne caaxaw lu ma léeg-léeg damay toon caamin yi waaye bii moom ab caamin la daloon ci bilal xam ne ne li may wax dëgg la benn caamin boo xam ne ñun ñëpp xam mag bilal xam nañ ko bokk nee na benn soxna triyank da koo dab daal dina ko ah man daal imaam dama am benn problème yàlla dafa dogal man je suis à l'aise mën naa sama bopp waaye nag daal li ma manqué rek mooy borom kër ma bëggoon rek ndax doo ñëw ñu sëy ci yàlla tax nee na mu ma daal di duggoo yi daal di ree ree ba yàgg ba gestu ah dana mën a nekk de yaakaar naa dana mën a nekk de mais mu sëy ak moom amul problème loolu kon mbokk ñu xam ne ab sëy islam da koo gisee jaamu yàlla la wallahi maa ngi leen di seede ne dégg naa ci benn débat rajo Londres BBC BBC ñuy débattre lu mel ni ñu ne bari na tey ay jigéen ñu sëyul mais lan moo ko waral cadre bi ñu toll góor ñi dañ leen di ragal àndul tee woon ñoom ñu dem xool bu gis góor bu baax ñu dem proposé ko seen bopp loolee mi ngi noonu dañu doon am ay soxna am ay doom mbokki doom tey ji occidentaux yi bañ demee ba yàq seeni jukko seeni njaboot nangatuñu am doom gis nañ bokk na lu ñuy ragal mooy bombe démographique mooy bi jóge Afrique jóge Asie mënuñu leen a téye ba seen xalaatkat yi dañ leen di wax dans cinquante ans Europe dootul am lu tax mooy ñeneen ñoo ñëw dëkke ko loolu tax ay milliards la ñuy investir suñu dëkk yi pour planning familial façon contraception bu ne ñu ngi ko fi indi jàngal suñu jigéen ñi ne waru leen am doom mbokk na am suñu borom dana nattu nit nga sëy amoo doom dana la nattu amul dul góor amul dul jigéen waaye na nga xam ne mbokk jullit bu la yàlla ubbali buntu jaboot nga la waaye utal jaboot Omar ibnul Xattaab nee na dana takk daanaa takk ay soxna wallahi sëy bëgg ay sëy taxul ma takk soxna mais rek ngir am ci doom ma gaa yi xoolal tey nga faatu dem àllaaxira bàyyi fii trente personnes yoo xam ne góor ak jigéen bu tisbaar jógee ñu jóg na allahu akbar tàkkusan allahu akbar julli ñaan ñaanal la yàlla tuyaaba yëpp yàlla bindal la ko ndax dana yem ak ki fi bàyyi ay ñaar ak ñett laa kon boo ma ni utal njaboot ndax yónni woon naa ay yonent may leen ay soxna may leen ay doom donte ne ne yonent yi am na ci yonent yoo xam ne amuñu doom ku mel ni Isa amul doom ku mel ni Yaxya amul doom ku mel ni Zakariya benn doom la ko yàlla wërsëgal mi ngi noonu Maryaama jigéen ju baax la benn doom la ko yàlla wërsëgal yaayam Haanna benn doom la ko yàlla wërsëgal kon loolu ñu xam ne moom mbiri yàlla la waaye nag lii tubaab bi bëgg ci ñun buñ ko nangu ku mën a am njaboot na am njaboot ja'alnaa lahum azwaajan wa zurriya suñu borom yàlla nag mu ne yellul ci benn yonent muy indi benn aaya lu dul ci ndigalu yàlla mbokk yonent mënul indi kawtéef lu dul ci ndigalu yàlla suñu borom nag mu ne dig bu nekk am na lu yàlla bind na ca la war a sottee yéen yéeféer yi yéen ngi naan Muhammad indi mbugal indi kaza indi kaza yàlla mooy dogal te du seeni wax booy tax muy indi lu nekk utal na ko place ba nga xam ne ca la war a sottee borom boobu nag ne téeréem boobu mooy far lu ko neex mooy saxal lu ko neex ah naam li kulli ajalin kitaab waa jàng nañ ko yaakaar naa di yamxullah ma yasha waa jàng nañ ko am déet jàng nañ ko naam naam jàng nañ ko yamxullah ma yasha yàlla mooy far lu ko neex ci téeréem mooy saxal lu ko neex ci téeréem mbokk téere yooyu ñaari téere la am na lu ñuy tuddee lahwul mahfuuz muy ubbul kitaab loolu yàlla lam ci bind du ko changé bindoon na ko depuis mu bind asamaan yi suuf juróom-ñaar fukki ju juróom fukki junni at am na téere yi malaaka yi yor waa ji def na bàkkaar wëlbatiku na tuub na suñu borom ne far leen bàkkaar bi waa ji nekkoon na koo xam ne naroon naa gàtt wërsëg mi ngi kër këri daal di def effort ci jokko ay mbokk ci def lu baax suñu borom ne yokkal leen ko loolee kon ci xam-xamu malaaka yi ak ci jëfi doomu aadama yi yàlla cay changé lu ko neex jéggal kii toroxal kii gàttal kii ila axiri ila axiri ila axiri loolee kon ci mbiri yàlla la amul na keneen ku dul yàlla koo xam ne mën na changé sa destin abadan kenn mënul changé sa ëllëg sëriñu tariyax bi da ngay dem mu ne la yow day da ngaa gàtt wërsëg li ko waral mooy nangam nangam il faut ñu cangat la mi ngi loolu utal la ay njaq dama sang fii sang fii sang fii mbokk déedéet sa ëllëg kenn mënu ko changer ko dul yàlla loolu kon moo tax jullit di ñaan ñaan googee ngay ñaan sabab la pour yàlla changer say sa sa sa sa ëllëg ci sa wàllu wërsëg sa wàllu wér-gi-yaram sa wàllu ndàngam te ñaan googu ngay ñaanit su amee rek day fekk ne yàlla bindoon na ko ci ab téeréem ndax yàlla lu nekkul ci ab téeréem du am kon bu la yàlla déppalee ngay ñaan santal yàlla ne lii dogal la bu yàlla dogal gannaaw ba nag nga xaar muñ lu yàlla dogal rek nga nangu ko yamxullaahu ma yashaa wa yusbit wa indahu umul kitaab loolu muy wone ñaari mbir jullit bul yaakaar ku dul yàlla bul ragal ku dul yàlla benn xéewal lu ñëw ci yow lu dul yàlla bind ci yow benn lor du la may lu dul yàlla tegg ci yow mi ngi noonu yàlla na yàlla bindal ñu jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira amiin kon xam naa ñu yéegale saa bi benn yoon Cheikh Ousmane
أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سميع الحساب لقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس فسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب
jazakallahu xayra sunu borom mu ni wa imma nuriyannaka ba'da alladi na'iduhum su dee na ñun day dañ laa won lenn ci li nga xam ne ñi ngi leen koy tëkkoo aw natawafayannaka wala ñu faat la jiitu loolu fa innama alayka albalaa yow dara waru la lu dul jot ci li rek wa alayna alxisaab ci ñun nag la war lii di régler jaam yi ci seen liggéey awalam yaraw awalam yaraw ma ndax yéefir yi gisuñu annaa naati l arda nanqusuha min atraafiha ne ñun de ñi ngi dikkal suuf di ka wàññi ca catam ca catam ya wallahu yaxkumu yàlla rek mooy kiy atte laa muaqiba li xukmi amul kenn koo xam ni dafay am ak baamu gu muy def gannaaw ba yàlla atte muy atte waat wa huwa sari'ul xisaab te moom day ko gaaw la ci ni muy réglé ay ni muy réglé ba jox yéeféer yi seen mbugal wa qad makara allazina min qablihim fexe woon na ña nga xam ne ñoo fi jiitu woon fa lillahi almakru jamia dana ñeel ya yàlla fexe ya moo la seen yaalamu ma taksibu kullu nafs xam na la muy fàgg bépp bakkan wa sa yaalamu alkuffaaru liman uqba daar yéeféer yi xel sa nañoo xam kan lay ñeel mujju kër ga wa yaqulu allazina kafaru lasta mursala yéeféer yi ñi ngi naan eh yow doo yonent dara nekkoo ku ñu yónni qul kafa billahi shahidan bayni wa baynakum neel doy na ci yàlla sama diggante ak seen diggante muy seede sama diggante ak seen diggante wa man indahu ilmul kitaab doy na ci seede it ka nga xam ne xam-xamu téere ba dafa nekk ci moom mi ngi noonu mbokk jullit kon suñu borom def na yonent yàlla bi bu dee dama laa woon lenn ci li ma leen di tëkkoo walla ma faat la yow li la war mooy jottilil ñun yàlla nag ñooy xool jëf yi ndax jëf nañ ko am déet ñu regle leen ci am déet bokk yonent yàlla bi ñi ko gënoon a sonal jamono yi aaya yi di wàcc ca Makka yàlla dajale na leen ak ñoom ca keroog Badr mu rey ci ñoom juróom-ñaar fukk yeew ci ñoom juróom-ñaar fukk yóbbu Madina loolu yàlla wan na ko ko gannaaw bi it yàlla xamal ne ko ni du yow yaay topp nit ñi bañ jaamu yàlla du yow yaay mbugal du yow yaay fay li la war rek mooy jottali ñun yàlla rek ñun ñooy réglé loolu it moo tax ba mbokk doomu aadama war a tiit ndax bu doon te ne suñu moromu doomu aadama moo ñuy réglé sa doom moromu doomu aadama mën nga ko nax waaye yàlla kenn mënu ko nax borom bi ne xanaa nit ñi gisuñu ne maa ngi ñëw di wàññi suuf di wàññi suuf loolu am na benn zahir zahir bi mooy lan mooy la chaque ne océan yi dañuy lekk plante la nga xam ne mooy suuf bu wow bi ñu ngi noonu sama mbokk bi inspecteur Samb mi ngi mi doon wax ne ñoom waa ndar lañu seen maam yi bu njëkk ndar dañ daan war fas pour dem géej tey jii yéen di dem ndar gis ngeen ni géej ga nekk biir ndar kon loolu day fay avancé loolu boo demoon te géej gi ngay gis ne ah géej gaa nga woon fu sore sore sore ànd naa ak commandant ñaar bi ñu bëri ci jàkka ji xam mu wan ma benn daggatu mont kër bu nekk ci biir géej gi booy génn te géej mënu ma gis nga lële mu ab bâtiment la woon bi ñuy xale foofu lañ doon fooyi ci géej gi da koo sori woon presque lu toll noonu kon océan yi day avancé donte ne ni lu bari ci mu fassiroon dañ ko firi mooy yonent yàlla bi yàlla nga koy may muy avancé dana ko may muy avancé di gagné la nga xam ne moom mooy ay noonam ci lislaam du deñ di avancé du deñ di avancé ba ba àdduna di tukki yonent bi alei salaam ne na dana wër kaw suuf yépp du am benn dëkk bu ñu def ci tabax wala bu ñu def ci sàkket lu dul lislaam dana fa dugg te falilahi alhamdu tey partout dans le monde xalaatkat yépp d'accord nañ ne benn diine may avancé muy diine l'islam yeneen diine yépp mi ngi reculer di dellu gannaaw borom boobu nag subhanahu wa taala ne mooy atte ci li mu atte amul atte bi ñëw gannaawam mbokk atte yi yàlla yi la ci jiitu mooy li muy atte ci jaami war koo jëfee yàlla du dogal ba pare borom xel wëlbati ko naan dogal bi jaaduwul ba ñëwee tey am na lu ñu tuddee suñu cour yi ah cour de justice yi gannaaw ba ñu ne atte bi nañ fa atte ñu naa atte bi doyu ma ñu dem cour d'appel doyu ma ñu dem cour de cassation loolu mbokk léeg-léeg ñee ne ñi jëkk atte li ñu wax baaxul am na suñu borom lu mu wax rek noonu la moo ko jullit tey jii journaux yaa ngi jóg di wax affaire peine de mort bi naan nangam ah kilifa bi wax naan nañ ko delloo si loolu lépp loo baax la waaye nag nañu xam ñun ñëpp suñu responsabilité ci kanamu borom ñun ñëpp dañ ci am responsabilité ku nekk na sa kilifteef toll war ngaa xam ne atte bi yàlla mooy atte bu maandu bokk jullit loolu ngeen dégg ci Tamba xawma Kolda xawma ban dëkk laa dafa bees rek ah Tamba la non xale bu jigéen boo xam ne mi ngi muuru xale bu jigéen boo xam ne ci weeru koor nit ñëw ne day da koy agressé pour violer ko loolee dayul mu rey ko tey nga dégg ñu ne jàpp nañ ko mais mbokk et après jàpp nañ ko anam ah ña ngi ko yóbbu boole ko ñu sàcc ay ginaar ñu sàcc barada ak kaas moom lañ leen di boole jeex na bu añ jotee jox ko añ reer ndekki terminé bu yàggee balaa am ay pexe ñu jël ko génne ko sa génne ko ci biti loolu mbokk ndax loolu mooy justice kër bàyyam bëgg koo violer rey ko loolu mbokk da ngay gis ne suñu borom yàlla nee na walakum fil qisaasi xayaat yaa ulil albaab yéen ñi nga xam ne da ngeen am xel kuy rey ca tey ko ñu rey ko loolu la xel nangu loolu it mooy li xel nangu moo tax suñu borom ay atteen kenn du ci gis faay laa mu àqe bi li xukmi bàyyi gannaaw ba yëpp mooy atte di dogal lu ko neex ci ay jaamam li yàlla dogal kenn du dogal leneen lu dul moom yàlla dogal na kullu nafsin zaa'iqatul mawt ndax gaa yi nit mën na koo tebbi déedéet ñëppay de yàlla lu mu dogal ci nit ñi kenn mënu koo teggi allaaxira it mooy atte yaxkumu wa allaaxira bu atte cour d'appel amu fa cour de cassation amu fa ku yàlla atte si terminé laa mu'aqqiba li hukmi baram boobu nag nee na moo gaaw ci ni muy régler ay jaamam ca mooy gaaw nu mu leen di bugale mu ne yone ñi fi jiitu woon de doon nañu fexe ay fexe ngir fay diine yàlla ci waaye nañu xam ne pexe yépp ci loxo yàlla la nekk mbokk yonent ci yàlla bi waa Màkka daje nañu assemblée générale nu ñuy def ba fay mbirim bi is yamkuru bika allazina kafaru li yusbituuk aw yaqtuluuk aw yuxrijuuk wa yamkuruna wa yamkurullah ñu daje assemblée lañ mujj wax daal mooy kii pour ñu nappalu ci moom bépp famille ci Quraysh nañ fa jël ay ponkal ñu xaar ko bu génnee këram ñu rey ko benn yoon ay mbiram ñu nappalu ci moom suñu borom mu ne ba ñuy fexe maa ngi fexe fekk jox na yonent yàlla bi ndigal na ko génnal dem mu génn dem ba la ca mujj yi ñëpp xam ngeen ko dellusiwaat na nat màkk gépp loolee kon suñu borom mu ne wali falillahi makru jamia mboolem pexe yi ci yàlla lay dellu borom boobu moo xam bépp bakkan lu muy liggéey te yéeféer yi xalsa nañoo xam lii di mujj kër ga kan lay ñeel te la shakk ne wal aaxibatu lil muttaqin ak mucc ñi muy ñeel mooy ñi ragal yàlla yow yonent bi li ñu lay wax metti na la na am yéeféer yi ñu ngi naan la doo yonent dara mi ngi noonu waaye neel doy na yàlla seede sama diggante ak seen diggante ak ñi yàlla may xam-xamu ñu xam lan mooy téere lan mooy xam-xamu téere bokk na ci loolu histoire bu ñuy yegg dégg ci abdullah ibnu salaam nga xam ne moom ak yahud la woon bi yonent yàlla bi ñëwee nee na bokk na ci ñi ko doon teeru gis ko xam ne kii nitu dëgg la ca laa ñëw gëstu diine gëstu alxuraan ba xam ne lii mooy li nga xam ne moom la Muusaa doon wax amul benn différence ci ne kii mooy yonent bi ñuy xaar mu ne nag yonent yàlla bi dama bëgg a dugg ci diine ji waaye nag da ngay may woon kilifa labbe yi nga laaj leen mën may kan bi yonent bi woo kilifa yi leen waa yoon lu ngeen xam ci abdullah ibnu salaam ñu ne ko kooku moo ñu gën a xam tawraat baayam moo ñu moo fi gënoon a xam tawraat abdullah ibnu salaam daal di génn ne ay yéen kilifa yahudi ragal leen yàlla li ñu yàlla waxoon ci tawraat mandarga yooyu yëpp yonent yàlla muhammad bi indi na ko ñu ne ko ak cim xanaa lu kii kii moo yiis ci ñun bàyyi ma yiisul ci ñun yow seen daal dem say dem seen yoon waaye ala kulli xaal képp ñi amoon xam-xamu diine sikk sàkkawuñ ci ne yonent yàlla muhammad mooy que yonent yi jëkkee doon annoncé ñi ngi sant yàlla mi ñu boole ci ñëkk a gëm yàlla ñu yàlla booleeg moom àjjana yowm alqiyama wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ki rey nit ca teyu ko kenn du ko rey ki rey nit ca teyu ko dafay am benn diye buñ koy teg te mooy valeuru téeméeri giléem wala valeuru junni dinaar ci or loolu lañ koy teg waaye bu dee wóor na na teyu ko moom kenn du ko rey mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam
عنده أم الكتاب naam ah عنده أم الكتاب naam ummul kitaab mooy ndeyu téere yi mooy lahwil mahfuuz nga xam ne moo ëmb lépp loo xam ne nii suñu borom yàlla dana ko dogal ci mbindaa fanam yi ummul kitaab ca la dogal yi doomu aadama yi nekk ca la tawraat ak injiil téere yi lépp lu yàlla nara dogal ba ilaa yawmi diin yépp suñu borom noté woon na ko ci lahwil mahfuuz mooy ummul kitaab mi ngi noonu jalla wa ala naam bismillah naam ناقص تحديث الشاهد في جزء ولقد كتاب waaw حديث مشهور بس
gannaaw takkusaan ndax dañuy tere ku ci julli waaw loolu mooy mazhab Malik ak yenn borom xam-xam ñoom dañoo gis ne bu ki julli takkusaan ba pare su duggee ci jàkka du julli ñaari rakka ndax pour ñoom gannaaw takkusaan kenn du naafila doonte ne ne la nga xamee ne ni mooy yeneen gisin yi ñoom dañ ne yonent bi alayhi salaam daf ne kenn ci yéen bu duggee jàkk bu mu toog lu dul mu julli ñaari rakka loolu nag gannaaw takkusaan ak gannaaw fajar ak gannaaw lépp ci bokk yem wallahu subhanahu wa taala aalam ah bismillah naam
léegi
waaw loolu la mi ngi noonu loolu moom du mbiri lislaam non loolu moom waaw voilà ku li xaal kon waaw kon mbokk waaw bismillah ñu mujj ci mbokk bi rek waaw aleykum salaam waaw waaw tawraat moo wàcc ci yahuud yi injil moo wàcc ci nasaraan yi doonte ne ni injil dafa nekkoon musaddiqan li ma bayna yadayhi min at-tawraat mi ngi noonu injil dafay ñëw di rectifier ay yenn yu nekk ci tawraat waaye ndeyu téere bi nga xamee ne ni moo yu ëmb yahud ak nasaraan yépp mooy tawraat moo tax ñoom ñu koy tudde l'ancien testament muy tawraat ak le nouveau testament muy injil loolu nag mi ngi noonu amma alxuraan bi mu ñëwee moom dafa folli téere yooyee duñ ca gëm lu dul lu dëppoog suñu téere doonte ne nag da ngay gëm ne téere la yu yàlla wàcce woon comme ni ngay gëmee Muusa yàlla yónni woon na ko Isa yàlla yónni woon na ko waaye jullit duñ na ko mukk demal jël tawraat di am benn acte bu mu cee seet wala ngëm-ngëm bu mu cee seet mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain waaw